salaamaaleykum mbokk yi yéen itam Walfayda la référence internationale daal leen ak jàmm ci xabaar yi bu ngeen taaxee lu tuuti rek ñu a fës a am ci réew mi mu am atum ren ji ci wàllu ba jamono ko bokk na ci mbas mi ne ci réew mi loole nag ndongo yu bëri ñu ngi koy naqarloo ci geneen wàll ga nag seen ay wéyjur ñoom rafetlu nañ ko waaye suñu jàpp nag mooy dañ leen a néewal doole ñu bëri ci askanu Kaolack andi nañ ci seen gis-gis daa ngeen ne dégg ak Cheikh Ababacar Dieng yemoon na ji nga xam ne rek ndongo ca commune bu Ndiébel ak dëkk ya ko wër ñoom ne woon ci jàmm ndax ay samba boy yi leen di dogalee li ko waral bokk na ci diggante l'école yi soxyanto ndax rek seen ay kilifa yi ngànk wàllu njàngale ma foofe ak mairie ba ña ngay sàkku rek ci kilifa yi ci uh, kaw ñu uh, jàppale leen ci lii di mairie ak uh, sem ndax ñu mën a nekk ci jàmm daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne daañu leen demal ca grande instance bu Kaolack andi leen leen ci ñaar fukki dossier ak juróom-benn jot a càmbar ni ki démb ca audience flagrant délit ba ci seen biir chronique judiciaire ak ndimbalal soxna Ndeye Fatou Cissé te bitim réew Cheikh Tidiane Sarr moo ñu fay demal tàggat yaram Serigne Moussa Kane li yëgle kaay xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé lay doon lu lépp yembe mbokk yi xabaar yi dali buur ñu ñaanalante wala tàllu lu ñu dikk ak yéen ci yàttal gi ak fam fàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye Khady Sadio. dal leen ak jàmm mbokk yi yéen itam Alfayda la référence internationale ngir xabaar yu leer te wóor kaddu gi di bàyyeekoo fii ci meuble Cheikh Imam Assane si studio Alé Momar Lo El Hadji Libaas Mbaye moo janook man ci wàllu xarale gi ba dégg-dégg bi mën di leer ca njëbal la ñuy ubbee bi la jotaayu xabaar wax ci ñàkk karange gi nga xam ne rek ndongo yaa ngi koy dund ci yoonu lekkool yi ndax ay samba boy ya leen di dogale saa su ne tax rek kilifa ya di sàkku rek ngir ñu may leen ab sem yokk ko rek ci lycée ba nga xam ne ñu ngi koy jooytu boobaak fexe ba sotti Cheikh ci Diagne. commune bu Njëbel élèves yi fi nekkee jamono ji ku ci toog sa fit du dal ndax ay samba yoo xamante ne dañuy laqatu ci àll bi di leen dogale rawatina jigéen ñi Ousseynou Mboup mooy secrétaire général municipal bi moo ñu ko xamal. waaw léeg-léeg man bi day jóg mais xam nga foofu maanaam du libre xam ne nit ñi dañuy dem ak a ñëw maa sama boy mën naa def dara mais nag day am ñoo xam ne léeg-léeg dañuy fay fekk dàq leen ñu daw loolu nag yàlla la rek mais nekkul loo xam ne à tout moment mën na di am mais wax dëgg yàlla xale ko wër am na Koussé am na Kountialène am am na kër Bamba Leeba am na jët mu ni kër Malick Ndiaye am na Ndala Malick yooyu yëpp day am ay samba boy leen mën a dogandeku boo yegsee ci dëkk bi gannaaw ay taax ci centre ville bi lépp loo fi seen ay ñax la ñax yu wow koŋ taxawaay bi gudd lool fii nag la defkatu ñaawtee fii di laxatu bu ñu sukkandekoo ci secrétaire municipal bi nag nee na jot na ñu taxawal yeneen école yoo xamante ne mooy aar ndongo yi loolu moom yàgg nañ ko wax ndax Macky Sall ba mu ñaanoon nañ ko benn système au niveau de Kunku Séeréer ndax Kunku Séeréer ak budget bi incha allah conseil municipal dinañ def yeneen démarche def di demande au niveau des autorités administratives pour ñu créer un CM au niveau de Kunkung Séeréer ñi nga xamante ñoo fi yeewoo tamit ne seen rongoñ feragul ci jooy bi nga xamante yàgg nañu koo jooytu ci ndoddu nguurub Sénégal te ba léegi saafarawul muy ab lycée lycée bi dañ ko ñaan a ñaan a ñaan a ba sonn ndax ni ma ko waxee léegi njëbel dafa nekk commune boo xam a Sibassor mbaa Kaolack duñu am ku leen yore foofu mais njàng xale yi li gën a yàq lu bëri bëri mooy ñàkk fu ñuy nekk bu ñu yóbbee feneen bu weesoo jafe-jafe yu ni mel ñàkkum kaaraange tamit bokk na ci luñ fi seen moom ak beneen commune bu mu taxalool di diya dëkk boobee nga xamante ne ci ay bés bale ñu génn rek la fa ay sàmba booy dugg daal di sàcc xaru borom dëkk ba ak yenn ci xaru ñi nga xamante ñoo di waa asbef jox la cër Cheikh Tidiane Diagne lu ci mbas nekk ak xale yi bu fekkee ne bëgg nañu lim gi wàññeeku gannaaw ba mu leen yàqalee lu bari ci wàllu koom ñeel luuma yi nga xam ne rek tëjoon nañu leen Ousseynou Mboup ba ma ngay wéyal waxtaan bi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. feeñ na si baax a baax surtout si wàllu recette parce que boo toogee mois de mars ba mois de juin amul luuma day wàññi recette te au moins chaque lundi day am lu muy dugal au la commune bu ñëwulee day wàññi suñu budget baax a baax feeñ na si baax a baax. lënd bu jot gendarme yi fii nii ku takkul masque ñu forcé la nga takk masque vraiment nit ñi am nañ si habitude loolu masque yi moom gars yi fayatuñ ko ñoom à tout moment dañuy masque yi te yi ñu nemmeeku fi si luuma yi si réew taax kon bu ñuy ñëw aussi ah, mooy xam nga nit bu fekkee ne bu nga ko aar yow seetal par rapport ak li nga koy wax est ce que moom woon na par rapport a génn mbaa mbas bi dina gën a wàcc ci ñaar fukk la jox seen doom suñ demee école di ko yóbbaale loolu dina permettre mbas bi gaañu ci école yi dañuy jógee ko euh, njëbel dellusiwaat fii ci Kaolack waaye dañuy des ak euh, ndongo yi atum ren ji nag euh, fête yi nga xam ne rek ñu ngi ko doon jël ci weer ak décembre bi ñu nekk nii amul mag bi dakkal na ko yenn nag ci askanu Kaolack rafetlu nañ ko rawatina ci jamono jamonoy deuxième vague bi ñu nekk nii Cheikh Tidiane Sarr. ñu wax ni dañuy annuler feet yi yaa xam Noël la wala li nga xam ne moom la ñu wax feetu fin d'année bi ñu bëri nag ci askan wi jaaree ko ci parents d'élèves yi nga xam ne ñoom njàng mi soxal ne tey waruñu sax waxati waxu feet Iba Galo Seck kenn la ci ñoom. feet yi dafa war a dakk Noël feetu chrétienne la 31 décembre feetu fin d'année la Sénégal dafa doon dëkk bu bari feet feetu gàmmu feetu màggal feetu nowel fête des mères feetu nangam 360 jours yi boo jukki woon feet yi tey dara dootu ci des te njàng mi dafa am lu ñuy wax kantoom horaire bu ñu war a respecté est-ce que ak grève yeeg lii xew ak yooyu yëpp danañ ko mën a respecté nañu arrêté feet yeeg ñoom seen teg ko fële booli ko seen samedi ak seen ak dimanche parce que Covid bi liñ fi jot a teg rek doy na sëkk. lu nu mel tamit la wax waajur bi ñuy wax Pape Sarr. suñ gis-gis vacances yi mooy ak Covid 19 année daanaka kenn jàngul li nekk li gën daal mooy bépp fête boo xam ne day gàllankooru jàng xale yi ñu bàyyi ko ñu teg ko fële ko parce que feet yi dafa bëri. ay risque lay doon bu ñu bàyyee élèves yi ñu jël fête yi ci waxtu bi nga xam ne ñu ngi ci ñaareelu vague Covid 19 ci gis-gisu Ibrahima Vieye Diagne doon président association parents nekk ca lycée Antoine ex Gambetta. ak contexte bii ñu nekk nii ñu koy wax coronavirus. man de suma avis lay joxe. te avis bi may joxe ñëpp xam nañ ne président parent d'élève la mais aussi docteur la. te ci biir président parent d'élève boobu aussi. juree lak cofee la euh, yépp daf si bokk. donc euh, xale yi. su naroon na jël feet tey. ñii dinañ jóge fii dem Ndakaaru ñii jóge fii dem ci yeneen réew yi xale yi jaxasoo feete et cetera te ñëpp xam nañ ne coronavirus kat fii mu toll nii. wax dëgg yàlla Sénégal jaaxle lamlaamee deuxième vague léegi deuxième vague bi am na wax dëgg yàlla nit ñi war nañoo mën a ku nekk fa nga nekk nga toog fa nga def sa fête Noël delluwaat ci sa liggéey. ak lum ci mënti doon président de la république jël na ab décret wane ne feet yi daal dañ koy toxal ba jëmmi jamono lépp ngir ko ci mbas mi ñu wax Covid 19. jaajëf Cheikh Tidiane Sarr bu amee nag ñu koy rafetlu ci waajur yi suñu mbokku kercen yi ñoom la ñu gis mooy dañ leen a néewal doole waaye ndongo yi itam am nañu lu leen métti lool Cheikh Ababacar Dieng. feet yi ñu dippe feetu noël yi nag ren du neex dara ci élèves yi nguur gi dogal bu mu jël moo di at mi dafa corona école bu mu ubbee yàggul dañuy maasale far bi si yëpp jàng ko kenn du jël feet Massé Guissal moom parent d'élève la nee loolu rek moo mën a am. waaw loolu loolu jaadu xale yi toog nañ presque sept mois ci kër yi jàngiwuñ ñu nekkoon classe d'examen rek ñoo delluwaatoon ñëwaat toogaayu xale bu bare oisiveté baaxul ci xale la mënuñ leen a duwalaat à l'école un mois deux mois nga bëgg leen delluwaat ci vacances di dindiwaat sax rythme bi ñu jàppoon loolu moom d'accord naa ci waratuñu dem vacances ay Pâques ak ay Noël ak yooyu yëpp jaratu ko ay deux trois jours doy na ci sëkk. fukki fan ak juróom le école yi daan jël le vingt cinq ak le vingt six ñu commencé waat ci classe yi loolu ndax mun na dara Mamadou Guèye benn la ci système yi nga xam ne mën naa jubbanti njàng mi. waa ci sama gis-gis lu yàlla la d'une part bu fekkee rek objectif bi yëpp rek mooy ñu jéem a fexe nu ñu améliorer comme tam horaire bi nga xam ne xale yi comme gis nañ ne daaw jànguwuñu woon bu baax a baax lu bëri ren bu ñu reprendre aussi war nañ fexe ba vacances yi wàññeeku kooku man gisuma ci benn inconvénient. li ñëw ci soow mi nag moo di yi ci bi te di dund si beneen diine bu ak lislaam dañoo jàpp ne su fekkee nguur gi dafa annulé feet yi daf leen a néewal doole lii jullit yi ñu ngi ciy joxe seen xalaat ku ci mel ni Mamadou Gueye parce que bëgguñu ñu dëxëñ ñaari mbir yu bokkul la communauté chrétienne bi nga xam ne ñoom les fêtes de Noël lu sacré la ci ñoom aussi su ma sañoon duñ leen xañ li nga xam ne li seen ay fête la comme dañ ko bëgg def dañu war a fexe def tous les nuñ ko aménager de sorte que comme li sama doyal ñu bàyyi leen aussi ñu célébrer ko ni ñu ko war a célébrer te fekk ku nekk dina ci sa bopp ndongo daara yu ñu jot a dajeel nag ngir laaj leen ci ñàkkug vacances Noël yi ren yi ñu ne bu amee daal du lu leen neex dara Cheikh Ababacar des ak sa micro ci wowule mbir diir bi nga xam ne rek ndongo yi toogoon nañu ko te jànguñu tax na rek ba ñu bëri rafetlu ko ne dina mën a tax ba ñu dabu programme yi nga xam ne rek jotuñ koo àggali euh, daaw a rek fête yi ñetti

économie bi mooy perte bi c'est énorme daaw yaa ngi tëj bu ko encore nga tëjaat baaxul ci état bi Samba Ousmane Ba ñu naan ko dan moom dafa jëlaat lépp daal di koy delloo nguur gi ne ñoom waajur yi la ñuy xaar rek mooy seen ëllëgu doom daal di mucc ayib tax rek résultat yooyu tukkee ci bi la dogal moom rek la ñuy xaar Samba Ba ñëwaat na ci li nga xam ne rek noonu la ko gisee ci micro Cheikh Babacar Dieng niñ ko gisee moo di ne xam nga aussi état euh, dama jàpp ne euh, information yi mu am amuñ ko te convention régalienne euh, bi nga xam ne mu ngi concerné problème mu njàngu xale yi euh, yaakaar naa ni moom moo ko yor donc euh, am ay techniciens ba pare war a mettre aussi ay dispositions yoo xam ne dina permettre xale yi ñu war a mën a am quantum horaire boo xam ne dina permettre njàng mi mën a tegu ci yoon mais ñaareel ba aussi nous les parents d'élèves ci mel ni man tey dama jàpp ne rek ni gouvernement bi mission mooy mu def fexe ba sama doom jooju nekk dans des conditions yi nga xam ne dina ko permettre mu a assurer ëllëg sa réussite sur le plan son éducation man en réalité mënuma ci avancer trop parce que comme je ne suis pas un expert en la matière mais dama koy delloo gouvernement bi rek teg ko ci responsabilité moom mi nga xam ni moom moo am mission wu encadrer xale boobu donc su demee ba jël disposition yu mel noonu rek damay jàpp ni xëy na ñoom jàpp nañ ni moo gën ci xale yi ñun li ñuy def mooy bàyyi ko xel suivre pour les résultats que ça va donner pour ensuite mën a def ci appréciation. li ñu moom mooy Covid bi dafa perte bi année bi bañ yéex a tijji ndax loolu fukki fan ak juróom yi war nañ jox xale na ci dara. pour man fukki fan ak juróom yi euh, tuuti na tuutiwul li ma la wax la compte tenu peut-être que ñoom euh, ils ont pris ay techniciens ay conseillers yoo xam ni xalaatal nañ leen ci wàllu éducation bañ yaakaar ni 15 jours yooyu xëy na buñ ko mobiliser euh, concentré ko ci njàngale mi et su mënul régler problème yëpp yi dana xam na dana am xëy na lu mu ci atténuer xëy na wax ni nag mën na régler problème yi et aussi peut-être avancé la loo xam ni parce que njàng du caaxaan donc fukki at ak fukki fan ak juróom yi ngi ciy teg yaakaar nañ ni warul mën a apporter lu am solo waaye nag aussi mën na am lu mu safara donc man euh, loolu moom moo sama gis-gis. Samba Ba wala bokk Adam euh, dañuy des ak ndongo yi ba léegi dem seeti ñi nga xam ne rek ñooy jàngee ca diwaanu Ziguinchor ñoom nag seen xalaat dafa wuute lool bu ci ñi àndee ña ca des ñoom ànduñ ci Mohamed Sagna. kilifa yi yor njàng ak njàngale mi fii ci diwaanu Sénégal jël nañu ab dogal bi wane ni fête ñu daan jël ci période de Noël pousse nañ ko ba fin janvier mu nekk li nga xamante ne élèves yu nekk ci lu Djignabo bu Podor ñu ngi koy euh, waxtaane ñenn ci ñoom jàpp nañ ni décision bi ni mel am na solo lool ndaxte nemmeeku nañu ay yéextal ci wàllum démarrage année scolaire 2020 2021. bu dul woon corona bi dinañ jël feet mais tamit dañ koy nangu nag lépp loo gis ci àdduna rek ndogalu yàlla la. pour man loolu dafa normal parce que ñun bu ñu waroon jël feet du ñu arrangé ak kii coronavirus bi toog nañu sept mois te defuñu cours depuis mois de mars ba novembre bi lañ commencé def cours.

xam ne duñ ko jàng ñu jël beneen semaine bi na li nga xamante ne lu jaaxal ñëpp mbaa li ni mel lu juraat ay gàllankoor année scolaire 2020 2021 Ziguinchor Mohamed Sagna Alfayda FM. Mohamed Sagna dañuy desandi foofu ca diwaanu Casamance dem ci commune bu Sindian fekk fa amicale bi nga xam ne rek moo tàkkee ndongo yee jàngee ca daara ju kawe ja ca Sigicoor di université Assane Seck ñoom nag am nañu mbégte mu rëy gannaaw ba ñu jotee lu toll ñaar fukki matelas ci loxoy maire bu Signan Aïssatou Goudiaby moom mooy secrétaire général amical ba mi ngi ci ñëwaat ci micro Mohamed Sagna. mun naa ne nga am li lal pour tëdd foog nga am ombre bu ngay duggoo di remercier tamit bonne volonté dama nekk di cité am nañu logement bi pour ñu dëkk pour autant que ñu perdre de temps pour dem ci maire bi directement te bu ñu demee ci maire bi directement ñu accueillir à en tant que ay doomu commune bi en tant que ay frère ay rakk ak ay mag en tant que mag ci yéen dina jël samay taxawaay ci yéen def li ma war a def ci lañ ñu jox vingt matelas yi nga xamante ne dañ kaa gis tey xam nga ku ñu xool tey nga xamante ne kanam yi tey ak kanam yi njëkkee bokkul ndax tey foo ñu fekk dañuy reetaan ndax dañoo am mbégte te tamit doyul mais lépp loo gis bu ñu mais tamit di jaar ci li tamit pour wax ni porte la tamit pour ñu mën a wax suñu yeneen grand yi ci lii parce que seen ay rak lañ mënuñu nekk fii tamit tout près ci université bi dëkk fii ba pare di continuer di souffrir loolu dafa war a dagg yaakaar naa ngeen bu tamit seen yaram dafa war daw si ñun yi nga na ko am na suñu yenn collègue yi doon jàng ba feebar instant ñun ñi sax amuñu xaalis pour dem pour faj leen dafa difficile dañoo mujjee jël seen bagage ñibbi ndax boo nekkee situation lu metti metti doo gis dara question yooyu nag bëgg nañ tamit ñenn ñi bu ñu mënee taxaw tamit ñu mun ñu see taxaw waaw lu baax la si ñun daal waaw ñu ngi remercier le maire ak équipe bi di remercier tout le monde di wax ne que bi euh, na ci ji ak ni ko maire bi euh, defee waaye itam lu tax ñu ñaan ko fukki mat la mu may leen ñaar fukki mat la Cheikh Tidiane Goudiaby ak Mohamed Sagna. di am fierté ñëw taxaw fii di wax ci tuuru maire bi nga xamante ne moom mooy jaraafu dëkk bi muy commune Sindian mooy Yankhoba Sagna bi ñu yi ak ñi nga xamante ne dëng maam ñoom ñooy suñuy rakk suñuy jarbaat ñuy doom ñi nga xamante ne ñu ngi ci daara ji kaw ja ñu ngi naan université université na ku ko dëgg ku ne même soo fa demul même soo fa jàngul di nga xam ne nekk na daara ju kaw ji nga xamante ne dafa bëri ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu nag la xale ñëw diisuñu ne ñu dañoo toll ci diggante bi nga xamante ne diggante bu metti la ñu buggoon na talal seen loxo pour jaraaf dëkk bi muy Yankhoba Sagna mu am bët bu leen xoolee ci ndimbal li ci a ci seen euh, mébét ay ay matelas yi nga xamante foofu la ñuy tëddee ndax am nañu fu ñuy dugg dèjà le ne leen alhamdulilah dëgg naa seen mébét dinaa ci taxaw tànku ku leen di jàppale tànku borom njaboot ndax euh, jaraafu réew indee ji cheikh la da ngay tëdd njaaxanaay su ko defee nga mun a satisfaire sa njaboot bu boobaa la décider naan da ngeen ma ne fukki matelas ngeen bëgg yi nga xamante ne ñaar nit ñoo koy bokk mu gis ne jamono ju ñu toll ni si jamono ju métti la jamono mbas bi ak sa morom ci moytu li nga xamante ne loolu mooy jàngoro bi ñu dundee ci jamono ji ñuy wax ni temb mu ne donc dinaa leen jox lu toll si ñaari fukk matelas yi nga xam ne kenn ku nekk day xaw a sori ak sa moroom mu nekk sa matelas yow kenn mu doon li nga xamante ne daf ko def ngir yàlla parce que defu ko pour puukaréew waaye daf ko def ngir yàlla jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy étudiants yu diwaanam def ko nag dafay firndeel ne rek bëgg-bëgg ak cofel ak yéene bu yi nga xamante ne mooy jàng suñu jàngee ñu mun a tekki. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 mi ngi noonu ñu àddu euh, jëmale rek ci li nga xam ne mooy budget euh, bi assemblée euh, votel gouvernement bu Sunugal ñenn nag ci ay ministre fësal nañu anam ba ñu nara a doxalee la ñu leen denk ku ci mel ni rek ministre fonction publique ak le nouveau durable di soxna Mariama Sarr moom nag andi naay leeral ci plateforme ba ak tolluwaay ba waaye itam anam bi nga xamee ne rek moom la état bu Sunugal di recruter ñu teewlu ko moom Mariama Sarr ci micro Arouna Niang war day nekk loo xam ne lu ñuy dépassé la mais état rek mënul jël ñëpp parce que plateforme bi laaj nañ ñu si nekk ma jàll ci plateforme bi plateforme bi ñu ngi doon wax deux cent mille tey chiffre yi ñu joxe jege na lool deux cent mille ndax dañ koy nettoyer ñu ngi gërëm tamit honorable député Aïda ci li nga xam ne wax na ko muy ci plateforme bi war nañ ko di réactualiser ñu ngi ci lool di ci liggéey di ko réactualiser parce que emploi yi da ngay gis ku demandé ba pare am leneen mais duñ la dindi buñ la dindiwul nag toujours dañuy jàpp rek ne programme bi yëpp lii la alors que am na ñu bari ñoo xam ne dem nañu feneen am nañu loo xam ne yaakaar nañ ne moo gën plateforme bi tey ñu ngi toll ci 199 952 ñoo nga xam ne inscrire nañ mais ñi ci inscrire ñëpp 113 484 ñoo ci def inscription bu complète parce que inscription bi tamit dafa am lu muy laaj ñu bëri dañuy bindu du yegg du ñu am yenn information yi bu ñu ne tey ingénieur informaticien la soxla tapé yem ci kenn dugg mën na am la ñuy soxla ci ci information duñ ko am souvent aussi du ñuy dugal seen numéro de téléphone moo tax yooyu yëpp dañ ko dugal ci communication ministère bi pour ñu gën a xam lan la ñu war a def ci plateforme bi pour am inscription bu complete donc ñu xamal ne leen rek ñi ci bëri tamit par concours la ñuy dugg ku si mel ni ENA CFJ ay douane eaux et forêts police armée yooyu yëpp ay concours la donc recrutement dafa bëri ay voies yoo nga xam ne état du Sénégal daf koy def pour jël ay agents. moom itam fësal na anam ba mu nar a jooyante fànn bi nga xam ne rek moom la ko dénk bokk na ci rek gën a ñoŋal li nga xam ne moom mooy bay di dundee yokk li nga xam ne moom mooy agropole yi fii léegi ñaari at dina ko a mu ñoŋ Moustapha Diop mi ngi ci micro Arouna Niang maa ngi am budget bu ñuy wax neuf milliards de francs CFA maanaam euh, incha allah yaakaar ci ñaari ñu tegu ci euh, voie wu industrialisation ñu bëri di wax naan Moustapha Diop moom xanaa dafa dof wala dafa ko jàpp parce que ak neuf milliards mu naan day industrialisation industrialiser Sénégal booba yemuñu rek ci neuf milliards yooyu parce que ab ministère wala ab département ministre ba moo ko jox contenu mooy créer des projets yoo xam ne dina permettre loolu ñu ko dénk mu mën a ba tax na ci loolu gannaaw bi ñu réaliser la plateforme industrielle de Diamniadio ak milliards yoo xam ne état bee ko joxe trouvé nañ encore milliards yoo xam ne ñi ko jëmale ci deuxième phase plateforme industrielle de Diamniadio nga xam ne signé tey ñuy poser question ci affaire souveraineté alimentaire parce que tey ñun ñëpp gis nañ ne ci mbas mi bay dund rek moo koy saafara ndaxte tey bu ngeen xoolee pays industrialisé yëpp daanaka liñ doon import exporté di ko jëmale suñu dëkk yi bi mbas mi amee dañ ko téye seen dëkk yi pour seen population yi mën koo dunde ba tax na président de la république xam ne tey le développement de l' agro industrie rek moo mën a saafara mbir moomu mu décidé ñu mettre en place ay agropole ci Sénégal moom it fësal na liggéey ba ñu ko dénk ci na mu ko a euh, doxalee ba ñëpp gis ci seen bopp ak jéego yi nga xam ne rek def na ko ci lépp rek toll ci ay waxtaan ak diisoo Omar Sarr Arouna ci mbirum euh, fer bi xam nga nag projet bu yàgg la am mi fer soo déjà bu ñu ko créé mooy société ba xam ni moo yore affaire feeru Sénégal oriental loolu wax avant mooy région Tambacounda bon waxtaan nun si am na ay projet yu am tey am na ñuy waxtaan ak nun wax ni mën yi yooyu yëpp ñoo ngi siy waxtaan bon maintenant am na parti ba nga xam ni concerné wuñu am parti ba nga xam ni xëy soo bëggee defar port du concerné ministère bi kon da ngay waxtaan ak ministère ba nga xam ni moo yore économie maritime mais nu parti bu ñu concerné mooy vraiment affaire nu nu fexe bay jëli ko dindi ko mu jëriñ Sénégal donc loolu am na société yu bëri yu liggéey si loolu ay weer dinaa ñëwaat assemblée parce que ñoo ngi liggéey si code minier ngi xalaat liggéey encore si code minier bi en même temps am na benn loi bu ñuy wax contenu local xam ne sax euh, CEDEAO demandé nu ñu def ko amoon na code local fii pour affaire u pétrole ak euh, gaz mais pour xool si société yi soo demee par exemple seen seen dëkk yi su suñu waree jël benn nit nit ma nga xam ne mu ngi jógee foofu am na qualification boobu kooku mooy nekk prioritaire soo bëggee jënd sax ndox fekk am na boutique bu koy jaay foofu mu am qualité foofu nga ko war a mooy taxawaay yi si nan ko war a defee bay localité yëpp gis seen bopp. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point ñetteelu pàcc bi ñu ngi ko jagleel mbiru yoon muy rek wane ni ñu ngi ci seen biir chronique euh, judiciaire ca tribunal grande instance bu Kaolack euh, ñaar fukki euh, dossier soxal fanweeri nit ak juróom càmbar nañu ko fa niki démb ca audience flagrant délit ba niki démb bokk na ci rek dawalkatu moto Jakarta bi nga xam ne rek ñu ngi koy toppee mbiru pédophilie ak lii di viol waaye itam détournement de mineur ci ab ndongo moom dawalkatu moto Jakarta ba nag bu mayuwul dina weeru kaso yëf ya nag mi ngi amee nag euh, ci da nga ko doon au téléphone ngir mu ñëw fekk si la seen kër dawalkatu Jakarta bi te ñu ko doon toppee ni ay tuuma ne daa amal jëfu viol détournement ak pédophilie ci ab xale bu jigéen boo xam ne kon mineur la tontu ne waaw euh, procureur ma ko doon posé question boobee nag ne ko loolu mooy détournement de mineur ndax daa fexe ba xale bu jigéen bi nga xam ne kon ay atam daa yées sa fukk ak juróom-ñett fekk si ko ci loo xam ni ay waajuram yëguñu ko ndax bu ñëwoon ba ngeen wéet danga ko doon foon di ko raay prévenu bi ne waaw ba tey ndawal ministère public ne ko loolu mooy pédophile gi bokk ci li ñu koy toppee itam juróom-benn weeru kaso ni daan di la mu sàkku ci réquisitoire am gannaaw ba mu génnee ca tuuma yenuy toppee kon dawalkatu Jakarta bile di àpp xale lu góor ndax mu ne nag du preuve bu mën a tax mu ne kookee moom ci plaidoirie ma fekk client wam ci déclaration ya mu doon amal démb ca kanamu tribunal ba la mu doon wax moom maître Ndiaye mooy ne xale bu jigéen bi moo doon sàkku ci moom lépp lu ñu mës a séq ba doom ma juddu ca tribunal ma ajandi dogalam ci mbir bu ni mel kon ne àllarba ji fanweeri fànn ci weeru décembre la koy joxe keneen koo xam ne taxaw na démb ngir ak ma waaye di mujjee xam nag li yoon dogal ci moom àllarba ji ñu dëgmal di ab ma nga juróom fukk mbaa lu moom nag càccum ñaar fukk ak benn ci ay nag lañu ko doon toppee ni ay tuuma boroom nag yi nga xam ne nag démb ma nga woon ca àtte ba ci kàddu ko avocat wam ma nga doon sàkku fanweeri million ni ndàmpaay tribunal bi fas yéen caa joxe dogalam kon àllarba ji ñu dëgmal ñaar fukki dossier ak juróom benn ñeel fanweeri nit ak juróom ca ñoom ñaari jigéen tribunal ba càmbar na seeni mbir démb gën na caa fës nag mbirum dóor ba gaañ diggante sàmm sàmmkat ak baykat egg sax ba ci biir kër yi mbirum faux billet de banque ab commerçant tëj nañu ko ca ñetti weeru kaso yu muy tëdd escroquerie abus de confiance itam bokk na ca dossier ya àtteekat yi càmbar démb ca audience bu yi bu Kaolack naka noonu juróomi dossier yoo xam ne mbirum accident la yépp nag jur bakkan yu rot tux yàmba di ab mbir bu mel ni lu jël tànki takkarnaase jamono ji la diggante kër ayib Medina Sabax jàpp Kaolack ak Kaffrine tax ba nag démb seetlu mooy ne tribunal bi daay yokk loxoom bu baax euh, ci daan ya mu doon na jibal ci délit bu ni mel ndax juróomi nit yëpp ya taxawoon na démb ca kanamu àtteekat yi ngir kon na mbirum tux yàmba ñoom ñëpp ñaari weer yu ni tëdd la àtteekat yi jibal ci seen kaw. Euh. dañuy delluwaat ci tribunal grande instance bu Kaolack des ba léegi ci audience flagrant délit ba foofu nekk euh, daan bu fa gën a diis nag mi ngi toll ci ñetti at ñu jibal ko nag ci kaw benn waay bu am juróom ci turu euh, Mamadou moom nag mosoon nañ ko teg loxo waaye tegaat nañu ko euh, loxo ca euh, Kaffrine ak ñaar fukki cornet ak ñett yile mbir ak yeneen i mbir daañu leen ko toppal ci seen biir chronique judiciaire ci ndimbalam moom soxna Ndeye Fatou Cissé ñu dem ca bitim réew. xabaar yi. bitim réew. Cheikh Tidiane Sarr na fan lañ koy dooree. ca réew mii di Mali lañ koy doore wax ci teg loxo bi nga xam ne commencé nañ ko nag di ko teg loxo ñenn ci ay kilifa yi nag jaarale ko ci sécurité bi nga xam ne nag moo di sécurité état ba nag teg loxo yooyu nag ñu bëri ci askan yëgaguñ ko ndax ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoo fi doonoon ay kilifa ca nguuru Ibrahima Boubacar Keïta nag lañ commencé daal di sonal jaarale ko ci ay service de renseignement ñaari ay fan a ngi nii daal soxna Ndeye Khady ñu gis ne ay kilifa yu mag a mag ca réew ma daal commencé nañ leen euh, teg loxo nag yaa xam ne ñu yëngatu ci wàllum taskatu xibaar naka noonu yoroon ay kuréel yu mag a mag ca ma ba ñi nga xam ne nag ñoo nekkoon nag euh, Ibrahima Boubacar Keïta bokk ci sax ki réew ma nag ñu gën ko xam ci Sékou Traoré moom tamit euh, teg nañ ko loxo ak ñeneen ci ay cadre yoo xam ne nee nañ daal ñu ngi liggéey ca trésor ba muy ay teg loxo yoo xam ne nag ñu bëri ci askan ba jamono ji ñu ngi koy naxarlu bu baax a baax xabaar bitim réew ca Gabon li ñuy jubali wax ci li nga xam ne nag moo di opposition ba opposition ba nag dafa naqarlu bu baax a baax li nga xam ne nag moo di projet de révision bi nga xam ne nag namoon nañ ko amal ci sartu ndeyu réew ma nag di constitution ba nag projet saytuwaat constitution boobu nag ñu bëri nag ci askan wa jamono ji nag nañ ko naqarlu jamono ji lu toll ci ñaar fukki représentant parti politique yi nag far ca ku jëga ak ñu nekk ca société civile ba daal ñoo taxaw temm daal ngir xeex lu nu mel jaarale ko ci ab déclaration boo xam ne ñoom ñoo ko dafa ndoor projet boobu nag ñu ne daal tey ba suba duñ ci d'accord ndax dafay nar a indiwaat beneen taxawaay boo xam ne dana ko may réew mi di Gabon jaarale ko ci président bi nga xam ne daanaka jamono ji dafa tële. xabaar yi. bitim réew ca turki moom journaliste bi nga xam ne moom ca ku jëga a faroon dañ ko tëj nag lu tollook ñaar fukki at ak juróom-ñaar gannaaw bi nga xam ne nag dawoon na làqatu ji ci beneen réew turam nag moo di kan du ndaar moom nag nee nañ dañ ko tëj prison gannaaw bi nga xam ne nag publier na ab enquête boo xam ne service su secret yi nga xam ne ñoo nekk foofu la ca turki daal ñoo ko doon fësal jaarale ko ci ay ngàndaay yoo xam ne nee nañ daal ay groupe islamiste yi nekkoon foofu la sa ñoom ñoo ko doon def daal mu fësal euh, xibaar boobu nag ba daal bu ñu sukkandikoo ci média locaux yi nag soxna Ndeye Khady daal moom tribunal bu Istanbul daal reconnaître ne daal ne kan du ndaar moomu nag danoon fi ancien rédacteur en chef bu quotidien boobu nga xam ne nag moo nekk ca ku jëga far fa fës fa lool tamit ca réew ma nag dañ koy tëj daal lu tollook ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci prison xabaar yi bitim réew ca États-Unis lañ koy jeexale wax ci njeexitalu mandat bi nga xam ne war na ko amal moom Donald Trump nag ci waxtu boobu ñu gis ne mu nga commencé nag di baal ñu bëree bëri nag ci ñi nga xam ne ñoo nekk ca réew ma doon ay doomu Amérique donte sax ñu ngi waajal li nga xam ne nag moo di investiture yi war a jébbalaat réew ma kii nga xam ne nag moo di Joe Biden waaye Donald Trump daal mu ngi profité di baal ñi nga xam ne nag yoon tegoon na leen daal wala sax ñu tëjoon leen ca prison bokk na ci ci ñi nga xam ne ñoo ko gënoon a jege nag soxna Ndeye Khady rawatina conseiller bi nga xam ne moo nekkoon conseiller bi ko doon xalal ci wàllum sécurité ñu gën ko xam ci Michael Flynn ak yeneen ci ay militaires yoo xam ne nag euh, tegoon nañ leen euh, loxo nag foofu la ca réew ma nag Donald Trump di def lu nu mel tombe tamit ñu bëri ci askan ba di wax ne ba léegi moom nangoogul ne dañ ko daan ci élection yi. xabaaru tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf.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 allah wëykatu Sénégal yi artistes yi fa ñoo yuuxu wàllu fa ñoo wax ne damm na ñu dee nañu na ñu tere gi ñu leen tere ñu xamal ay concert ay xumbute lépp ndax korona bi nee nañu seen boolu muñ fees na ba tax l'évidence yéen kaay ne jooyu xol lañ xamal réew mi yéen kaay na ko caab toogaanu ñaxtu lañ ko defee gàpparliku ca suuf mel ni ñu jommi enquête yéen kaay ne seen toogaanu ñaxtu boobu fañ leen ko aaye woon nag de amuñ ci woon ndigal waaye fa ñoo def mujj gi état bi deltu ginnaaw rappeur bi ñuy wax Fada Freddy nee na ñun fa ñoo bëgg a liggéey yelwaanu ñaanuñu woykat bi ñuy wax Youssou Ndour ci l'observateur mel ni ku naan leen na seen xel dal président Macky Sall danañu dimbale ñun artistes yëpp ndimbal li nag moo xam woykat bi fecckat bi kiy def bongo ñëpp a ciy bokk laas yéen a kaay mel ni ku naan ko Youssou Ndour yow war a wax di fa ngaa war a noppi ndax sa morom ya artistes yi seen toogaanu ñaxtu ba yow demoo ca fa ngaa boycotté naka noonu Pape Diouf Wally Seck Viviane ñoom ñëpp kenn demut ca xeex ba waaye di jaay ay grand ak ñoo gën a siiw loolu baaxut même su fekkee sax yéen sonn leen xam ngeen xaalis waaye seen nawle yi ñoom ñu ngi bëgg de dee yéen a kaay bi na sax bu ñu waxantee dëgg ñoom ñëpp a sonn xamatuñ tus fa ñu nekk fii di aaral rek ak a sagu nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na feetu Noël bii ak dogal yu ñu ànd ci corona bi tax na njabootu chrétien yi fa ñoo jaaxle da jommi wal fa jëri yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom la quotidien yéen a kaay mooy xeex wàllu corona bi gis nga vaccin bii maanaam ñàkk bi ah gaa ña ngi ciy tudd ay gàllankoor yu mën a jural ñenn ñu seen wér wér-gu-yaram vox populi na ko faalay xamal ne sénégalais yi téeméer boo jël juróom fukki ak juróom-ñaar ne nañ fañoo bañ bu leen kenn ñàkk bëggu ñàkk yi ci jamono jooju nag corona bi moom démb rayaat na juróom benn doomu aadama fanweeru doomu aadama seen bakkan nga ca nga ñaata la ñetti téeméeri doomu aadama ak juróom-ñaar fukk juróom-ñett aay te fi nii ñi ngi ci juróom fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay cas communautaire leen daara jolof nag nekkoon ab pharmacien ci l'évidence yéen a kaay nee na xëy bu ñu kenn rey fii xamul ay première wàgg ak deuxième ak wàgg li ma xam daal te leer ma mooy gis ngeen vaccin ñàkk boobu ñuy wax baax na de moom rek mooy pexe ngir jëlee fi corona bi nay leer nen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na Alioune Tine mi fi jiite woon rado ma ngay artu njiiti réew mi Macky Sall ci coppite yi mu bëgg a andi ci wàllu loi bi jëm ci état d'urgence ba yenn kilifa yi mën koo def ci réew mi ci Sud Quotidien nee na Macky defal ndànk l'observateur na ko Macky kay mu war a def ndànk fa bëri yi dafa ko bëgg a supprimer bëri nañu ci àndut de la mu àndut moom Khalifa Sall mooy fekki gi opposition yi di fekki Macky Sall ci les éco yéen a kaay nee na gis nga am réew fa war a xam ñuy nekk ci nguur gi di doxal réew mi xam ñoo xam ne fa ñuy kujje looloo baax di waaye ñëpp dem yéen a kaay bi na ko yow de xalaatoo ko lii yéen a kaay na ko xam nga lan la Khalifa Sall xalaat te ci pexe moom la nekk mooy taxawal ab coalition boo xam ne fay ànd ak société bi vox populi na Khalifa Sall kay samp na ndëndam 2024 ma ngay jagar toogaayam lépp lu ko mën a may ndam noppi na ngir ànd ak moom ka àndoon ak Idrissa Seck Déthié Fall na yoon yoonu tàqalikoog moom de a yaaw seetal comité dialogue politique bi xam nga Déthié faal moo fa toogaloon Idrissa Seck réew mi léegi nag moom Déthié faal fa wax Idi na ko remplacer leen ma génnee leen ma fi man toogalatuma la fii ba Saliou saar moo ko remplacer les échos yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom tribune yéen a kaay mooy ne Thierno Alassane Sall dugg na attaque na yàq na Idrissa Seck kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee nee na Idi du dara du tus ñu mel ni moom a yàq réew mi de la neen lu yàq réewum Sénégal Ahmed Khalifa Niass moo ko wax ci tribune yéen a yaaw seetal Ahmed Khalifa Niass fa wax na Sénégal daal réewum tooxi doon ak ndooxóor ak mbir yu garaaw scandale rek a fi am naka noona tamit réew la moo xam ne wàllu corruption ger fa fay fees dell lu jëm ci wote yi di ñëw nag fa jàpp na élection présidentielle yi boo moytuwut fañ ko nar a xëcc mu gën a jege si xamal ko 2022 le soleil yéen a kaay di ñu xamal na njiit réew Macky Sall jóg na ngir régler site internet yi nga xam ne ay mbir yu garaaw mbir yu bon rek lañ fay wane critique yéen a kaay na ko Macky kay fa bëgg a dindi site internet yi nekk l'observateur na ko su yeboo mu gaaw de ndax fi mu toll nii xam na ay compte yoo xam ne fañ koo tijji ci Instagram fañ fay partagé ay vidéo élèves yi nekk ci CM yi ak lycée yi ay mbir yu garaaw laa wax mi ngi toj dëkk bi de Vox Populi na ko xam nga nuñ ko tuddee flash cas yéet déet mi ngi yàq dëkk bi boo bëggee gis vidéo bu garaaw mbir yu doy waar ci ay elew wax lycée yi ak collège yi fa lañ nekk ñoom nag li ñuy toppandoor mooy série boobu ñuy wax Virginie moo tax ñu ngi def lu bon la neen lu bon lu xamoon Sénégal mooy daanuk Iron 9 te juróom-ñaari doomu aadama woon ci libération nee na enquête ba gaañaa ngi ca de njiital ANACIM nag ak yeneen ñeenti nit gaaña fañ leen a renvoyé correctionnel li taxoon nag mu këppu fa ñoo jàpp na ay négligence moo ko waral l'observateur moom di ñu xamal ne réewum Sénégal wàllu gu wi yol fi mu toll ni bëri na fi torop vox populi mel xaaral ma wax la bu bees tàq ñaari professeur moom la ñu wax ne fa ñoo wiyoole yegg ci ab elew bu jigéen bu xam fukki at ak juróom ñaar allah xalalu procureur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 rek ci yéen yaa ngeen jëf. Le journal Ndeye Khady Sadio.